jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbokki internet du 313 digital ñu ngi leen di nuyu baax ñu amaat mbégte dellu si ak yéen ci seen xibaaru diggu ba yi bokk na ci li ci euh, gën a fës moom Cheikh Bara Ndiaye borom euh, def gis nag gannaaw ba ko euh, juge bi kon dégloo ba noppi bu ñu sukkandiku en tout cas ci avocat bi avocat bi la di maître Moussa Sarr daañu nay am ay xibaar yu neex rek gannaaw kon ba ñu nanguwee woon ay téléphone am moom mujj na ci jotaat des na ci ñëw en tout cas ci biir yile xibaar lay doon bu ñu ci jugee mbokki seen loolu 313 digital itam danañu àddu ak yéen comme ni ñu leen ko waxee moom Ousmane Sonko njiital Pastef ga démb gannaaw euh, ba ñu rek euh, levé li nga xam ni moom moo di blocus ba fare fële ca cité kër góor gi moom Ousmane Sonko. Euh, kon na euh, fi mu ne nii euh, leneen mi ngi koy xaar loo xamante ni si ni mbokk yi faram gi léegi lay doon ci xibaar yi bu ñu ca jugee ñu dem ak yenn fële nga xam ni moom mooy ca Wakaam immigration clandis clandestine bi nga xam ni kon na ni ki démb en tout cas tiis wu métti la askan wa fare foofu yeewoo gannaaw ba ab benn pirogue daal di kon na Euh, euh, defee benn chavirement rek ba lu toll ci fukki bakkan ak juróom ñàkk ci seen bakkan en tout cas euh, am ñaar ñoo xam ni daal leen leen sowe danañu ñëw ci biir yi la xibaar démb ña nga fa woon ak xibaar yi nga xam ni taataan nañu ko ñi di waa sapeur pompier ak gendarme yi nga xam ni ña nga fare woon foofi noonu yi ak yaatal lay doon léegi-léegi ci biir xibaar yi transport nag dem beeg dikk bi ñii di waa aftu kon nag bis yooyu tataay daal di nag mer bu futtu banque seen i yoxo ba tax fi mu ne nii euh, dem ngeeg dikk bi euh, tàggatim bi loolu nit ki démb ak tey la ca perte en tout cas ciy toll na ci deux cent millions de francs CFA euh, des na ci ñëw ci anam yu mu gën a yaatoo ci biir yële xibaar lay doon Ama Balde Ama Balde moom itam nag di ëpp mbër boo xam ni jamono jii ni toll na toog na lu toog ci juróomi at yoo xam ni bëriwu ko moom Ama Balde ñii di waa CNG daal nañuy nag jël dogal ci ay mbiram ci biir yële xibaar des na ci des na ci addu maane ak transfert bi nga xam ni euh, def na coo jamono jii ni mbokk yi lii moom moo gën a fës ci bopp yi la xibaar neskis ñu faram fàcce mi ngi noonu mbokki internet di 313 digital dañuy euh, doore yi les xibaar ak en tout cas chavirement bi nga xam ni am na ni kii démb fële ca Wakam benn euh, gaal pirogue boo xam ni euh, ñii di marine nationale dañu leen doon kari di leen wàññi ba ay jéeya mujj ca am la ca faatu ci ñoom nag toll na ci fukki bàkkan ak juróom gën saa néew ñaar ñoo xam ni kon na daaju nañu leen rawale ñuy ay rescapé bu ñu sukkandiku en tout cas ci commandant chef bi nga xam ni ma nga fa woon ca yooyu le barab la mu ca xamle nag ñoom eh, ñi nga xam ni kon ñoom ñoo di yooyu le gone euh, jëloon euh, gaal ya doon euh, jaar ci géej gi ngir wutali foofu la ca Espagne ñoom nag amu ci ñenn ñoo xam ni kon ca boobale jamono jotoon nañu leen ràññee fa ñu jógeeg yu ni mel mais ñoom danañu continuer def li nga xam ni moom moo di seen ay enquête moom ministre ba di Antoine Félix Diome nag daa ji kon jóg rek déplacé wu ñëw ba foofu noonu la ca barab ba moom Antoine Félix Diome moom nag ma ngay xamle ni kon jiyee yu ni mel mbir la boo xam xam ni su amee nit ñi kenn warul gaawantu rek di wax pour wax waaye dañu war a bàyyi rek bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore enquête yi ñu def seen i enquête ba ñu xam ca dëgg-dëgg mbir yi naka la fa demee ba tax kon. moom Antoine euh, Félix Diome kon ma nga doon dalal rek xel yi sénégalais yi ak itam euh, xel yi way juri bu baax a baax ci ni état du Sénégal en tout cas ñoom ña ngay def lépp lu ñu mën seen euh, kéemtalaay kattan ngir daal di fexe rek ba wéy di gën a mën a ñoŋal en tout cas suñu tefes yi nga xam ni gone ya fa la ñuy jaare di jël li nga xam ni moom moo di mbëkk mi ba ay jéeya di ci am muy ay musiba yoo xamante ni si nii kon ña ngi ko fay nemmeeku moom Antoine. Félix Diome nag ma ngay euh, xam leen en tout cas renseignement yi nga xam ni bokk na ca yi ñu ca njëkk euh, am euh, gaal gi mu nga jóge fële ñuy wax Caaroy en tout cas daal ji rek escale fële ca yaraax gone ya foofu la ñu bawoo ngir jëloon gaale wutali foofule nga xamante ni si nii moom mooy ca Espagne moom Antoine Félix Diome nag en tout cas ma ngay xam le ca yooyu la mbir ca enquête ak ca na mu gën a leere ñoom ñu fexe ko amal ngir euh, daal di jox Sénégalais yi euh, ci ay euh, détails xibaar yi na mu gën a leere tribune nag xëy jàpp ni gone yooyu nooñu le xiif ak ndóol maanaam pauvreté gu métti métti moom moo tax ñuy daw seeni réew wëqet wutali ci réew yi tugal ya ñu jàpp ni ak lajj ca la goo xam ni état du Sénégal gouvernement bi dañu ko rek daal di amal ci kon na ndaw gi nga xam ni ña ko doon euh, campagne ngir ne danañu ca indi ay euh, saafara euh, moom Tribune jàpp na ni li firnde la ci lajjiteef goo xamante ni si nii kon. na gouvernement bi état du Sénégal kon daal nañu koy am rek ci wàllu googi noonu la mi ngi noonu mbokki internet du 313 digital ba tey ci. boobile immigration comme euh, ni ñu leen ko waxee woon euh, nit ki euh, démb rek fële ca Wakaam en tout cas enquête ya ña ngay wéy di continuer ña nga xam ni itam ña nga des ca géej ga ña ngay wéy di leen seet ba xam danañu leen teg gët waaw wala déet mi ngi noonu mbokki interne di 313 digital bu ñu ci jugee ñu àddu wax ci Ousmane Sonko bi nga xam ni junj nañ leen ko sànq ci bopp yi xibaar ni ki démb nag. fële ca euh, cité kër góor gi gannaaw ba ñu ko barricadé lu ëpp ci juróom fukki fan moom Ousmane Sonko njiital euh, Pastef ga en tout cas daal nañu xëy rek euh, gis ñu daal di yëkkati li nga xam ni moom moo di yooyu les barrières nit ki démb nag ñii di patriote yi dem nañu bari lool buntu kër Ousmane Sonko doon ko ndokkee lii ji kon ci boobule xew-xew waaye nag bu ñu sukkandikoo ci son chef de protocole moom ma Jibi Gueye Ndiaye ma nga doon leen xamal ni en tout yi euh, moom Ousmane Sonko ma ngay xamle ni du événement ndax euh, yooyu la barrière ñoom ñoo ko fa defoon ñoom ñoo ko dindiwaat te ma ngay jox rek askanu ko Sénégal euh, nit ki ci fan yi ñu dëgmal ci yeneen i sortie yoo xam ni moom Ousmane Sonko fas yéene na ko rek. Euh, daal di euh, amal bu ñu sukkandikoo en tout cas ñenn ci ñi nga xam ni ña nga fare woon foofu la ca cité kër góor gi euh, ci buntu kër Ousmane Sonko ña ngay xamle ni gannaaw ba nu yëgee bi la xibaar mbëgte mu rëy rëy la ñu ci àndal ndax lu ñu yàggoon bëgg la bëggoon nañu tam gisee gaaw gisee ak ki nga xam ni moom mooy seen leader ba di Ousmane Sonko gannaaw ba ñu toogee ab diir ay fani fan yoo xam ni mënuñu ko teg gët waral. ci taw bi ñu daal di namm seen dàll wutali ca buntu kër ga ngir kon na eh, dem daal di koy eh, ndokkeeli moom mi nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ci fàttali nag Ousmane Sonko ña nga ko di gannaaw euh, ba mu jógee fële ca Ziguinchor euh, ci gannaaw ba mu tëjoo ca diwaanu Ziguinchor ay fan yoo xam ni dafa lankoon rek ni wuy ji en tout cas fële ca yoon ci digg dossier bi doxoon ci digg mag euh, kii di Adji Raby Sarr noonee nag la daa di jógee fële ca Ziguinchor wutal si fii ci Ndakaaru ca ko kon takk der yi demee jëli yóbbu ko fële ca cité kër góor gi tëj ko fu boobu ba léegi ma fa. ci fàttali boobu le dossier ñu ko cee daan lu toll ci ñaari at yi kaso dañu ko jugé woon par contumace moom milee di euh, Ousmane euh, Sonko levé wu ba nag euh, ñi ci bari àddunañ ci ñii di waa forum de justiciable en tout cas ñi ngay xamle ni moom leader bu Pastef bi na góorgóorlu nag ba gannaaw dindi nañu bi de bile blocus bu mu defati lenn loo xam ni dafay provoquer wala muy dévier suñu ay institution ba mën a créer li nga xamante ni si ni moom mooy trouble à l'ordre publique ñoom euh, boobule gis-gis euh, la ñu ko euh, la ñu ca daal di am moom Seydi Gassama bu si nag moom yëkkati kàddoom xam le ni gannaaw bu ñu yëkkatee blocus bu illégal maanaam Ousmane Sonko gannaaw bu ñu ko tëjee ci tëjin woo xam ni jaarul yoon defoon mettroon ko sous résidence surveillée le lieu di parti de l'opposition Pastef kii di président Macky Sall nag dafa war daal di war a tijji nag bunti kaso yi libéré bépp détenu politique boo xam ni dañu lay jàpp ngir sa gis-gis ci wàllu politique wala njuumte wala nga bokk ci manifestation yoo xam ni euh, dañuy waxoon rek ni dañu ko interdire ñu daal di leen di bàyyi euh, ñu ñibbi ci seeni kër loole mooy euh, càkkutéefu moom mi lee di Seydi Gassama loole kon la daal di xamle mi ngi noonu mbokki interne di 313 digital ñi di waa F24 nag bind ab bataaxal di artu ci mbirub Aliou Sané bi nga xam xam ni jamono ji procureur ba euh, dafa sàkku ngir ñu daal di dindi liberté provisoire bi nga xam ni da ko amoon ba tax nag ñoom ña ngay euh, en tout cas euh, ña ngay yëglu di xam ne ni procureur bi warul topp maanaam bëgg-bëggu Euh, maanaam euh, décision boobu nga xam ni kon daf ko rek bëgg a jël teg ko ci kaw ki di euh, Aliou Sané ndax loole méngoowul ak li nga xam ni moom mooy dëgëral suñu ay banxaas fii ci réewu Sénégal mbokki internet di 313 digital bu ñu ci jugee comme nañu leen ko junje woon ci bopp yi xibaar moom gi Mari Sagna nag en tout cas ma ngay yàq musiba ak mbelangaan ki nga xam ni moom mooy président Macky Sall ndax nee na bilan wam wul lenn lu dul Euh, jàpp nit ñi di euh, tëj euh, nit ñi bëgg a faju mënuñoo faju sénégalais yu xiif gone yi nga xam ni dañuy daw di jaar ci mbëkk mi moom ma ngay xam le ni kii di président Macky Sall ci bilan bi nga xam ni def na ko en tout cas ci fukki at ak ñaar boo ko tënkee du weesu lii daal di tam jaay suñu géej gi dem jox ko tubaab yi loolee la Guy Marius Sagna xam le ni kii di président Macky Sall bu ñu koy waxal ci bilan lii képp la fi daal di def ba tax ma ngay sàkku en tout cas moom njiitu réew gi président Macky Sall du bokk euh, na bàyyi ki nga xam ni moom mooy euh, Ousmane Sonko mu daal di bokk nag à des élections euh, transparentes noonu daal di xamle bu ñu ci jugee ñu daaneele ko ak wàllu tàggat yaram sànq junjoon nañu leen comme moom Ama Balde doomi Fallaye Balde gannaaw nag ba mu toogee juróomi at bëriwul ngembam tooyul ci làmb gi moom Ama Balde nag ñi di CNG daal nañuy jël. Diop euh, ci ay mbiram gannaaw ba ñu ko am tëggalee ñaari combat benn bi dox ci digg mag kii di Gris Bordeaux beneen bi euh, kii di euh, roi des arènes di Modou Xarañ Lo ñii di waa CNG nag fixé nañu benn combat bi en tout cas entre le premier octobre moom Ama balde la war a rek daal di sëgg bëri ak ki nga xam ni moom moo di Gris Bordeaux écurie Fass mu mel ni que xibaar la boo xam ni kon na bu daal di am solo la ci mbër boobu noonu la nga xam ni moom. toog na juróomi at yoo xamante ni si ni bëriwu ko beneen bi dox ci diggam ak Modou Lo nag ña nga cey dégloon di ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo di waa euh, CNG ñu daw wutali fële ca Bayern Munich moom Sadio Mané gannaaw euh, transfert ba nga xam ni ña ngi ko doon laam yi fële ca Al Nassr moom agent bi nag dana dem fële ca Japon ngir négocier gannaaw ba kii di Sadio maani joxe feu vert ni dana jóge fële ca Bayern Munich ci fàttali club ba nag di waa Bayern Munich ñoom ña ngay def. ñoo doon def lépp lu ñu man ngir tàqaloog ñaancoo di gayndeek sénégalais ga di euh, Sadio Mané ba tax fi ak ay fan mën nañu séntu euh, kii di Sadio Mané fële ca Arabie euh, Saoudite yemoo ko mbokk yi fi ñuy daanjale yi di xibaar jox leen dig daje léegi léegi ci yeneen i programme laata loolu wéy leen di abonné ba sitam ci cloche de notification bi ndax ngeen mën di continuer di jot suñu ay programme jërë ngeen jëf